rajo Macky Sall la boole wuñ ci waa Kër Sëñ Fallou kon nag bu ñuy def réunion d'évaluation bi soxalu wuñ leen fa bu ñuy def cérémonie bi soxalu leen fa parce que rajo état la waxuma rajo état waaye rajo Macky Sall képp la jërëjëf. dafa mel ne bis bi jar na mat naa jar na te mat naa waajal. léeg-léeg mbir jar ko te du ko mat léeg-léeg mu mat ko te du ko jar waaye yaar yëpp suñu boroom dajale na ko ci bis bi nga xam ne moom la ñuy waajalal euh, Sëriñ Faliilu Mbàkke ndax bu ñu ko seetloo xóotal ko mel na ne yaar daje na ci yaari mbir mel ni mbir mi mooy wàllu diine ñi nga xam ne diine rek moom lañuy ñuy xeñtu fu ñu ko dégg wutali fa lii sëriñ bi jëkk a jotali ëmbaale na lépp ak geneen wet goo xam ne wàllu societé lañ koy tudde sëñ Fallu mi nga xam ne moom la ñuy waajaral bisam eh, ñaar yëpp la dajale woon di ko dund ba yaar yooyu ku ci féete woon yëgoon nga sa wàll wala suñ fa lu sedd ci boppam mas na taxaw fii ne moom mooy Sénégal Sénégal nag yaar yi nga xam ne moom lañ koy gën a xàmmee ba foo ko gis sam xel na yar na ci Sénégal ndax miin nga ko ci dégg mooy garab gi ñuy wax guy ak gaynde guy ku ne xam na ne lépp njariñ la ndax des na jël xàncam ya defar ci ay buum ñun ñu dëkk ci kaw gi xam nañ njariñam bu baax di ci yeew sunub jur di ci root di ci yeew it kuñ ci bëgg a luñ ci bëgg a yeew luñ ci bëgg a yeew waxuma kuñ ci bëgg a yeew waaye luñ ci bëgg a yeew waaye guy itam wuyam wa boo ko tojee dañ ca fekk buy eh, ku xam laaxu notari xam ngeen ne buy du ko wuute waaye kerem ngi it ku ne ci àll bi liggéey mënu ko ñàkk ndax kàdd mi gën a am yaakaar ci ker ci àll bi moom du taseeg ab taw fenn bu koy gis rek daal di jëri waaye su boobaa nag guy mooy jël relais bi su jàmbaar nekkee ci waar wi ba sonn mu ne ko kaay dallu ci sama kër gi jógaat dellu ca waar wa daana fajal nit suñ aw mar ndax nit toog na ba tey ndoxum toolam jeex xamut fi muy jëm xel na yar ci lëm mu ne ci guy mu yéegloo ca ku sawar root ca def lam ca bëgg a def lépp ci ndox kon guy ku ko jël ne man Sénégal laa te Sénégal guy bokk ci njariñi kese nga société mun la ñàkk waaye gaynde it ñiy demal Sénégal ci feneen sax di xëccoo ji tur boobu lañ lan di waaye gaynde it ku ne xam na ngorom ndax xam na li tax yàlla bind ko xam na lim ko sédde gaynde du xiif mukk ba xelam dem ci fortaatu am ñax di ko lekk waaye day toog xaar yàlla rek ba lu yomb romb ko ndax man gis naa ko ku tayal la sa warewul noonu du dem di wuti waaye day toog di xaar yàlla ndax diisaay bee tax ak ñi ko yàlla binde mu xam ko yëg ko te tiitarewu ko waaye day lëg ba lu romb yomb romb ko rek mu dox nag na ñaadam ñaadam jàpp ko jareñu sa bàyyil ko fa neen du ko du ko denc mukk jëmale bu gën xam ndax mënut a yëg bay denc waaye su si jëriñoo ba noppi xam na ni am am lañ wax saa soo amee lu la ëpp wàllu keneen na nga si mu bàyyi la ko fa ñeneen kon ku gore la koo xam ne du sonn ba tax ko wuti wutin woo xam ne gënal gënut waaye it du tooñ du tooñ kenn am na ku dëkk boori wetu Kédougou nee na ma ku mu jëflanteel rek kookaa ko bëgg a jaar sàkk te moo yaay nag su ko defee kon ku jël màndargam guy laa ak gaynde laa wax dëgg yàlla société bi mënu laa ñàkk ndax société bi mënut a ñàkk jàng saa su nekk anam na ñuy jànge ngor nu ñuy jànge doylu ni ñuy jànge xam sa bopp waaye ni ñuy jànge jariñ nit ñi it te bàyyi leen ak lañ yor loolu bis bi làmboo ko kon sëriñ bi Sëñ Abdou Fatah mi ngi ci woo jullit yëpp ñu bokk ñëw taataanandoo ci njariñ yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi ëmb ci biiram di woo mbooleem jullit yëpp ak fu ñu mën a nekk ak waa réew mi ak fu ñu fi mën a nekk euh, bàyyiwut kenn bàyyiwut fenn bàyyiwut ñenn rawatina nag ñi nga xam ne moom dañoo nekk ci biir réew mi te kenn ku ci nekk ni ko mbokk mi waxe léegi Sëriñ Fallu doon na dund ak ñaari nit ñaari xaaji nit benn xaaj bi njariñ lam leen amaloon taxoon na ñu yàgg koo ñaanal mu yàgg fi bañ mën koo fay ndax ay gor lañ gor day fay waaye beneen xaaj bi it ñoom euh, tooñu ma leen waaye dañ ne woon yàcc rek di ñaan mu yàgg fi ba yàgg leen a jariñ ñaar ñooñee nag seeni ñaan nangu na ndax suñ fallu jógu fi ñoom ñëpp nag ku ci nekk it am na njaboot kaar-kaar ba kenn ku ci nekk gëm na ni am na bor bu mu amee suñ fallu ni ko mbokk mee waxee léegi kon nag sëriñ bi nee na ku mas a jàpp ne séq nga suñ fallu wala sa mbokk séq ak moom mu ngi lay ñaan nga jokk kóllëre googu wuy si ko ci bis bii nga xam ne dañ ciy jàngat dund suñu fallu gu barkeel ga waaye ñi nga xam ne it ñoom la fi euh, monsieur le na toogal mi ngi koy ñaanit fu mu war a àgg mu àggale ko fa xamal leen ne it ñoom it njëriñul Sëñ Fallu mënu leen a teggi te mi ngi toog di xaar li koy xamal ku ñëw ak ku ñëwul daal mooy la muy séddale ma nga nag mu teg ne saa bu xoolee seen mu nekk fa mu xam ne diw ñëwagut bu xoolee mu nekk mu jógee fa nag mu xam ne diw fa mu ko tegoon la mu ko joxoon jël ne ko ba dem waaye dana dana jafe ci moom loolu nag ku ñëwut mu di la yóbbante naan joxal ma kee ndax euh, cërub xej ji xooj ji da koy jël saa su nekk mu ngi leen di fàttale waale it euh, màggalu euh, doomam ju baax jooju wala ji baara moom itam yàlla boole leen mbir moom it dugg na ci biir lool ndax diir bi mu fi nekk lim gàtt gàtt lim fi jariñ ci aw kenn xamut ni mu toll te néew na ku ne maa ko defal nangam lu mun doon am sëñ bi di dellu di ñaan ñii ñëw ñëpp yàlla leen yàlla indi si jàmm delloo leen ci jàmm euh, code boobu ñuy wax nan code sëñ fallu ku ñuy wax sëñ aafe mbay moom la ko sëñ fallu waxoon euh, ba mu amee li ñuy wax brevet moo jiitu permis de conduire daa wan ko ko ne ko ñi ma doon eh, gëstu ba xam mën na maa dawal am déet dañoo ma ko jox mu ne ko ma seet mu jox ko ko mu xool lañ ci bind lépp ne ko waaw yow de jàmbaar nga ndax wóolu nañ la waaye xaar ma dolli la loo xam ne xëy na bëggoon nañ la ko wax te mënuñ la ko wax ñii dama ko ñii ma koy wax ne ko sooy dawal wata da naan déjj duju toogaay bu dëgër ne nikk jàkk ne nikk ak say loxo say yoxo loxo mooy benn waaye yoxo mooy ñaar ne jàkk fi nga jëm eh, bu ne tacc nga ne tekk bu ne yang nga ne yow boo ne yow ba jub ab lunk-lunk mooy ab virage nga teggi sa tànk te màcc ci sa wetu nday jox boo ko génnee ba mu jeex takk mën ngaa delloo ca la nga nekkoon ku la ne piip ci ginnaaw maag yow ko man nee ko yow bàyyi ko mu jàll am ñu wax ne daw ndànk dal ndànk waaye kuy daw ndànk du dal ci kaw dara yàlla na yàlla indi ñëpp ci jàmm delloo leen ci jàmm bis bi nag nit ñi ñoo ko gën a yàkkamti ñi nga xam ne ñoo koy taxawe ndax bu gàmmu jàllee xew wi jëkk amat ci Touba te mu doon xew wuy jugloo ñëpp mooy Kazu Rajab bu ñuy gàmm rek tam laaj kañ la Kazu Rajab moom daal xam naa la sax waaye ñu bari it xam nañ la ci nekk daa mel daal dañ ko yàkkaliw faw ñu xam ne it euh, bis biñ ko jàpp da ciy baax ndax kuy waaj xam bis booy dem fukki fan ak ñett ci weeru avril bii di ñëw lañu ko jàpp yàlla nañu ko yàlla fekkeloo nañu romb ko daje ci ak ngërëmul sëriñ bi te kenn ku ci nekk bu ñëwee ba dellu it xam ne ñëwoon na ko si rajo kàddu yooyu RTS rajo Macky Sall la boole wuñ ci waa Sëriñ Fallu kon nag bu ñuy def réveil d'évaluation bi soxla wuñ leen fa bu ñuy def cérémonie bi soxla leen fa parce que rajo état la waxuma rajo état waaye rajo Macky Sall képp la jërëjëf bu leen fa bu leen fa jaarati parce que du ngeen dara bu leen fa